jërëjëf mbokk mi ala kulli xaal te ñu fa yéene ñëw ci gént xar ak li ci ajo mi gént la goo xam ne bari nañu koy laajte eh, bari na tegtal yu ci am yu am solo waaye dinuy mboolem ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel kàddu gi fu nu mëntikaa nekk ñu ngi ñëpp di leen ziar leen ñaanal jàmm eh, di ñaanal ñëpp jàmm rek eh, ñi nga xam dañuy siiwal ci tiktok bi ak ñi nga xam dañuy siiwal ci chaîne youtube bi mbooleem ci yeneen réseaux sociaux yi moo xam Instagram wala Facebook yooyu yëpp ñu ngi ñaan ngeen gën ci abonné bu baax ndax daan gën a tax liggéey bi gën a jëm kanam gént xar nag gént la goo xam ne bari na ñoo xam ne dañ koy faral di laaj waaye tegtal yu am solo yu mat di bàyyi xel mu ngi ci mbokk mi nga xam nag day li si xaar soxna wala mi li si xaar borom kër bu dee góor la muy li si xaar soxna gént ñu mën ko xar mu jigéen dañ kay xamal ne soxna si ku baax la soxna soo xam ne ku ko takk yàlla mën na cee def barke ala kulli xaal mbokk mi nga xam ne nag daa gént xaram génn këram te jamono jooju fekk ma am jafe-jafe ak soxnaam am na ci ñoo xam day tegtale sëy bu tas am na ci ñoo xam ne nag day tegtale alal ju war a génn seen loxo kon ala kulli xaal eh, gént xaar tegtal yu bari na waaye tegtal yu am solo incha allah rabbi yoo xam ne yu mat di bàyyi xel la mbokk yi nga xam nag dañuy faral di laaj numéro yi ci gént numéro bi ci lañuy envoyé message def vocal wax seen gént lu ajow na kenn di bind message gént gi di ko bind bu dee commentaire tamit buñ sañoon ñi ñu envoyé vocal moo li gën ndax am na ci loo xam doo ko mën di bind ci commentaire yi pour muy leer nit ñi di ko mën a comprendre tey yu leeral yu baree bari ñu ngi koy ñaan mboolem ñi nga xam dañuy faral di commentaire suñ mënoon di envoyé vocal loolu danañu gënal lool ndax gént gi da ci am yu ci aju yu bari yoo xam ne doo ko mën di leeral ci message moo tax message day gàtt lool te suñ ñoon tamit ngeen ko envoyé vocal di ko wax ñu koy dégg bu ko defee leen indi leeral yi nga xam ne moo ci am lu ajuwu sarax ñu wax leen ko ak yoon yoon ngeen di jaar pour la ngeen ni bëgg gi man di saafara incha allah kon ñi nga xam ne dañuy faral di envoyé gént ci message kon na ngeen ko bàyyi xel baax a baax xanaa kulli xaal ñi nga xam ne gént moo seen yitte kon mën nañ ci envoyé message vocal wax seen gént waxtu wuñ leen dégloo dinañ leen tontu ñi nga xam nag am na leen lu dul gént neexee mën nañu woote bu neexee mën nañu envoyé vocal kon mbokk yi numéro bi te am na whatsapp nañ koy bàyyi xel baax 78 la. 443 75 27 boobu mooy numéro bi nga xam ne incha allah rabbi ku ci jaar pour envoyer ñu vocal wax sa gént suñ ko dégloo dinañ la tontu incha allah eh, ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllum tawat moo xam ñi am jafe-jafe ci wàllum hémorroïde wala ndoxu siti wala ñu am jafe-jafe ci wàllum kattan moo xam góor la wala jigéen du sëy lu yàgg incha allah rabbi ñooñ bu leen neexe incha allah mën nañoo woote wala kulli xaal tamit ñi bàyyiwal xel baax ñi nga xam ne dañuy faral di am mbokk moo xam ne daa réer dem kenn xamatul ci lum nekk kenn xamatul mu dund wala daa am ci jafe-jafe lool mënuñu ko dégg mënuñu ko gis ñooñu moom it leen neexee incha allah mën nañoo woote bu ko defee ñoo ko leen ay solution wala kulli xaal ba tey tamit ñi nga xam ne dañuy bëgg ku leen seetal wala ñuy xaar wala ñu am lu ñuy lijjanti bëgg ma sotti bëgg ku leen ci ñaanal insha allah ñooñu bu leen neexee mën nañu woote waaye ñiy envoyé vocal moom luñ koy waxee rek mooy ñi nga xam ne gént rek mooy sa yitte kon nañ ci bàyyi xel baax a baax kon numéro yi insha allah mën ngeen koy jël 78 et 443 75 27 yooyu ñooy numéro yi nga xam ne insha allah rabbi ku ñu yittewoo rek ci yoon boobu ngay jaar. alaakulli xaal mbokk mi nga xam ne daa gént di di xar ci anam boo xam ni kenn baaxawu ci di xar ci misaal ci baat yow ngay rendee ci doq loolu moom it nekkul lëgën lépp koy def moom foo ko fekk koo xam ne day mooy yàlla lay do way laa koo xam ne alalam mu ngi koy def foo xam ne yàlla gërëmu ko mooy faral mi gént di rendee xar ci gannaaw foo xam ne baaxawul fa rende eh, ba tey tamit mbokk mi nga xam ne daa gént war ci am kuy loolu tamit day tegtale bu dee ku nekk jege kilifa la day tegtale koo xam ne daan not kilifa lool walla koo xam ne am na ñu muy jëflanteel ay kilifa lañ moom moo leen féete kaw ci wàllum kàddu ay jëfam nga xam ne lu wax nit dañ koy bàyyi xel baax a baax ba mbokk mi nga xam ne daa gént ñu jox ko coggale xar eh, ñu dénk ko ko a day tegtale ci moom yëkkatiku mën na nekk ak falu waaye mën na nekk ak jiite yu caagi ne bu nee falu nag du caagi nekk président wala nekk maire déedéet mën ngaa nekk ci barab nit ñi wóor la jox seen kàddu nga leen di waxal eh, foo dem nit ñi nga fa demal lool ak falu la ba tey tamit jiite ñaar nit su boo leen jiitee jiite nga dara ñu ciy bàyyi xel baax a baax ndax gént yi day def ay jeexital alaa kulli xaal ba tey tamit mbokk mi nga xam ne daa gént ren di am xar waaw loolu naqar buy jeex la naqar la boo xam ne day jeex ak gàllankoor yoo xam ne day jeex tey tamit ki nga xam ne daa gént gis ci këram xar mun dibi ci misaal loolu moom it nekkul lu gën moom it tawat lay tegtale wa ilaa balaa yàgg kenn mën na faa faatu wa ilaa ay tolof tolof ba tey tamit mbokk mi nga xam ne daa gént am xar war ci kawam loolu benn day tegtale kilifa goo xam ne not na ko wa ilaa mi tegtale sarax suñ ko diggal wa ilaa mu doon loo xam ne da koy lijjanti loolu féete ko kaw kon lu mat di bàyyi xel la baax a baax ba tamit mbokk mi nga xam ne daa gént am gétt xar ah, fekkee ne gént gu mel noonu day tegtale ñaari tegtal yu am solo benn mën naa nekk ak ubbeeku ci moom wa ilaa alal joo xam ne war na koy diggal ju baree bari ba tey tamit gént di defar yàppu xar di ko togg loolu moom it nekkul lu gën naqar lay tegtale wa ilaa ay gàllankoor ba tey tamit mbokk mi nga xam ne day liggéey lu mel ni tasxiir am koo xam ne da koy tasxiir bëgg xool ba xam jàpp na mu gént di rendi xar dañ koy xamal ne tasxiir bi nga dem tasxiir yàlla dogal na mu jàpp kon ba tey tamit mbokk mi nga xam ne daa gént di rendi xar lool it am na ci ñoo xam ne sarax la buñ war a génne am na ci ñoo xam ne ubbiku la lu mat di bàyyi xel bu baax a baax ba tey tamit am na ci ñoo xam ne gént gis xar ay sarax yuñ leen tegtal ñu war koo def mooy seeni mbir am na fu mu toll foo xam ne faw ñu génne am xar sarax bu ko defee yàlla tijji seeni buntu wërsëg mooy waral fu mu toll dañuy gént di xar kon gént xar gént la bu am solo waaye gént la boo xam ne am na ay njëriñ yu bari yu ci nekk waaye am na ay benn benn yoo xam ne gàllankoor la kon lu mat di bàyyi xel la baax a baax mooy gént xar am na njariñ yu am solo waaye yu mat di bàyyi